ka xalaatoon ngi tey le 12 septembre heure bii dina fekk le président jël décision na dafa tas assemblée. si je m'y waaw. ben benn moment si euh, mënoon naa mun naa ne waaw benn moment euh, xalaatoon naa ne que le 12 septembre dana moment bi ñuy wax. dana doon moment bi ñuy wax il est 19h19. fekk président tas comme également euh, xalaat naa ne tas ko c'était pas une priorité pour le président de la République euh, tas ko logique la légalité la li nga xam ne euh, constitution moo ko ko may euh, mais également dafa am ay contingences yi mu àndal ay contraintes yi nga xam ne ci biir tas bi xëy na ci biir waxtaan bi daañu ci ñëw mun na créer beaucoup plus de problème que de solution maa ngi koy fàttali démb fii bi ñu fi toogee. Euh, mooy que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent euh, bu ñu tasee assemblée bi voilà tout est réglé pratiquement euh, tour bi rek moo ci nekk mooy tas nañu tas nañu peut-être y aura plus de président y aura plus de débat parlementaire et tout mais lañ doon continuer di fay député yi dañ leen koy fay mm-hmm. donc euh, tant que la prochaine législature la quinzième n'est pas installée dañuy continuer di fay député yi donc mu nekk benn problème deuxième problème Euh, kii di Charles Émile Abou Ciss mu koy fàttali démb mu war a nekk ce qu'on appelle les arbitrations les, les arbitrages et, et, et, et euh, yi nga xam ne moom la nar a jur euh, pour un régime qui vient juste d'arriver je crois que priorité am war na nekk ci leneen lu dul nekk di ut ay conflits budgétaires muy ñaar ñetteel bi dama koy faral di wax également mooy que dañ nekk ci période ba nga xam ne nii nii nii nii nii nii dafa am ñaari mbir yu teg tegu ci ndodd président de la république même si même si euh, on a un conseil constitutionnel bi nga xam ne tellement élastique euh, bi nga xam ne mën na génne une solution des solutions benn bi mooy un euh, bu ñu naree euh, créer aller vers des des des élections anticipées il se posera le problème du budget qui n'est pas prévu ci euh, budget bi qui est en exécution donc pour tenir une élection législative deuxième bi mu nekk ci mbirum parrainage bi. Mhm. bu ñu tasee assemblée bi y aura des par rapport au parrainage c'est-à-dire que loolu également euh, dana doon la nga xam ne euh, dana nekk jiixi jaaxa euh, ci kii nga xam ne mooy njiitum réew bi moo tax ma ne en tout état de cause même si légalement et politiquement le président doit. dissoudre cette assemblée mais dafa am ay contraintes yi nga xam ne il faut mu jël ko en compte léegi ko nekk saafara buy jur jàngoro mu mu ngoog moom nag mooy euh, njiitum réew mi euh, je crois que il a des informations que nu ne détenons pas toll na fa nga xam ne am na responsabilité am na leneen li ngeen xam ne yor na ko te ñun yoruñu ko am na lu moo xam xamuñu ko mais en tout état de cause à l'état actuel de manière brute moi je dis que ñu toog waxtaan comme na ko Abdoulaye Wade defee woon ak la majorité du PS ba voté le prochain budget. d'accord alors d'ici vingt heures euh, maanaam vingt heures pile d'ici quelques minutes sax laay wax le président de la république dina jàkkaarloog Sénégal yi daal di wax lu fi jaar bari na euh, mbirum euh, immigration clandestine coowal su ma nee coowal mooy mbirum confrérie yi fi nga xam ne temps yi soulevé woon nañ ko. Mm-hmm. waaye aussi li nga xam mooy mbirum assemblée coowal assemblée bi nga évoqué tout à l'heure tu penses que bokk na ci question yi nga xam ne wala point yoo tey. logique pour logique daf daf ko war a aborder pourquoi mu war ko aborder parce que son premier ministre euh, moo toog wax devant tous les sénégalais ne que le 12 député yi daañ tal leneen lu dul tal nekk ay député donc mu nekk la nga xam ne sénégalais yu bëri ñu ngi xaar ndax des enfin cette annonce du premier ministre va être actée ou pas donc loolu mu nekk une raison pour laquelle le président doit se prononcer sur la question deuxième question bi. mooy euh, débat bi nga xam ne suivre nañ ko fii ces derniers temps mooy que le président de par ses yi nga xam ne digaale na ko woon ñun sénégalais yi dafa ne woon day supprimer euh, deux institutions jugées budgétivores mm-hmm. yónnee pour ñu tas ko assemblée tas bañ ko tas muy benn beneen balaa loolu mu amoon le débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne son ministre des finances dem na assemblée député yi ne duñ ko recevoir ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne ça a permis de mettre l'assemblée nationale au devant de la scène de telle sorte que normalement je dis normalement euh, bu weesoo cette actualité euh, malheureuse bi nga xam ne mooy le drame de l'immigration là bi am à Mbour euh, le principal sujet devrait être justement Euh, les questions liées à l'Assemblée nationale parce que dañ ko def ko un débat j'ai rappelé la dernière fois au ministre euh, du travail et des relations avec les assemblées bi mu ñëwee on a pu trouver une solution au bout de vingt minutes mm-hmm. ma ne il aurait pas fallu que vous ne n'imposiez pas ce débat aux Sénégalais pendant quinze jours mm-hmm. vous a fallu vingt minutes pour ngeen déggu ça veut dire Euh, auparavant mënoon ngeen déggoo pour que ce débat là n'empoisonne pas justement euh, le débat le débat le débat de manière générale au Sénégal d'accord Ayoba euh, yan attente nga am tey ci adresse à la nation du chef de l'État ben attente yi Pape Sané wax na ko léegi euh, pour la plupart parce que dafa am ay dafa am ay fait aussi yoo xamante ni euh, am na mooy premier ministre dafa jàkkaarloog euh, keroog le personnel de la primature euh, daal di annoncé ni à partir du 12 septembre député yi dinañ tal leneen lu dul nekk ay ay député loolu bu ko waxee implicitement ça veut dire que à partir du 12 septembre le président dafay dissoudre assemblée nationale mais loolu c'est ce sont les déclarations du premier c'est pas à prendre à la légère parce que le premier ministre discute mhm. mooy Diomaye mooy Sonko et cetera dépit de tout ça man euh, ci débat wu assemblée nationale beeg euh, yeneen débat yi man bi ma gën a intéressé mooy euh, débat bi tourné autour de la reddition des comptes keroog premier ministre annoncé na ni président dina wax ban état la ñu fekk ci réew mi. Mm-hmm. ak ñi réew mi nan lañ ko yoree woon. man mm-hmm. boobu débat ak a a ëppal importance que débat assemblée nationale bi lu tax parce que comme Pape Sarr ni mu ko waxee léegi man je juge pas pertinent de dissoudre l'assemblée nationale et d'entrer dans une impasse budgétaire. est-ce que amuñu lu ñuy annoncé. Euh, même su fekkee def na ko même su fekkee euh, je je je conçois que ni président bu jëlee décision tey dissoudre assemblée nationale ce sera une décision mûrement réfléchie autour d'experts yoo xam ni xelal nañ ko. ba impasse budgétaire yi nga xamante ni mooy am parce que euh, session unique ordinaire bi octobre lay tijji kenn booteegul budget 2025 nga tas assemblée nationale bi après nga war a euh, dellu ci ay services votés yoo xamante ni 2024 na ay programmes yoo xamante yaa ngi ko bëgg tëral te programme wuñ ko woon ci euh, budget bi loolu dafay jur pour man ay ay ay ay ay lënk-lënk yu bëri. mais nan mën a jàngatee Ayoba le président def adresse la nation ñu bëri ngi respecté ni wala ñuy na dissoudre euh, l'Assemblée avant zéro heure ba pare au même moment mi le président de l'Assemblée pour ñu tenir li nga xam ne mooy DPG du premier ministre pour demain oui euh, bon je pense que c'est deux euh, choses yoo. xamante ne ruse la wala stratégie politique man je prends ça plus pour euh, politique parce que bul fàtte ni ci contexte boobu. député yi nga xamante ni ñoo nekkoon euh, majorité parlementaire bi Benno Bokk Yaakaar dañoo dugaloon euh, li nga xamante ni mooy euh, demande session extraordinaire pour dugal motion de censure donc pour sauver entre guillemets euh, son premier ministre et et, et le gouvernement moo tax président bi dugal stratégie boobu pour parer à la date du septembre bi nga xam dañ ko bëggoon forcer le premier ministre pour mu ñëw assemblée nationale def DPGM non seulement mais pour ñu dugal seen motion de censure pour renverser ko donc pour parer à tout ça moo tax président peut-être dugaloon euh, demande am nga xamante ni mooy session extraordinaire parce que mhm. constitution bi moo ne bu fekkee extraordinaire exécutif bi mooy am mooy président euh, de la république donc noonu la fa demee pour man stratégie politique la ça n'a rien à voir yi nga xamante ni constitution may na ko pour tey jii article 87 pour minuit mu mën a dissoudre li nga xamante ni mooy euh, assemblée assemblée nationale mais encore une fois man euh, ci sama ci sama gis-gis. Mhm. c'est c'est pas c'est pas pertinent en tout cas de dissoudre aujourd'hui euh, l'Assemblée nationale après bu fekkee da ngay jëm ci benn impasse budgétaire boo xamante ni da ngay dugalaat réew mi ci beneen crise boo xamante ni mënoon naa noon naa ñàkk mun nañ bàyyi ba octobre euh, voté budget bi. Euh, en toute quiétude euh, même su fekkee majorité euh, parlementaire bi danañ leen indil ay danañ leen tegal ay ndëgg sërëx ci vote mhm. budget boobu mais mhm. quand c'est un risque à prendre et le risque est moindre pour man que mhm. dissoudre assemblée nationale ba pare <coughs> dem dugg ci benn impasse budgétaire boo xamante ni gouverner par ordonnance et puis service voté yi nga xamante ni nañ ko en 2024 ko reconduire en théorie bi nga avancé bu fekkee logique boobu lañ dissout pas l'Assemblée nationale aujourd'hui, demain il y aura une déclaration de politique générale. Euh, mais euh, force est de reconnaître que la tendance est euh, fortement du côté euh, que tey assemblée nationale bi ñu dissoudre ko. d'accord assemblée nationale immigration clandestine Issa Tine pour yow tey lan mooy def l'actualité bi nga xamante ne moom le président di jàkkaarloog sénégalais yi à hmm. dafa am ñaar yu am mooy lan la président def ak ñun lan lañ bëgg mu def ko Ayoba xëy na moom la nit ñi ñi ngi koy xaar dafa am benn muy assemblée nationale loolu loi moo ko may moo ko permetre à partir de tey mu di sudd assemblée nationale heure bu ko neexee parce que tey lay commencé mais loi bi tijjil na ko su ko neexee mu def ko suba wala ginnaaw suba dafa am lu ci euh, laxasuwaat muy laa DPG DPG bi moom euh, mën nañ ne bon euh, dee na bu yàgg parce que bu doon day am normalement war ñu convoquer les députés pour demain. ñu saisir leen ñun ñi ngi euh, am ay statut wu yu bari wala seen ay Facebook ak yooyu noonu gisaguñu kenn koo xam ne ayow ba euh, xëy na dina ko fàttaliku parce que yi am yëpp daanaka ci député yi nga koy njëkk a jëlee hmm. euh, ñu photo ko dugal ko wan la que ni kat damay convoqué na ñen wala dara amagul hmm. s'il y a convocation donc mën nañ ne li ëpp en tout cas ci ay probabilité mooy que ni assemblée nationale moom tey jii la ñuy wax ici repose l'assemblée la quatorzième législature <laughs> léegi nag li ci desaat mooy DPG bi ak li ci président bi waxoon yëpp boobu xëy na c'est not boo xam ne gars yi ñu ngi koy téye mooy euh, nee na leen le 13 lay lay jàpp pour ñu def ko DPG mu bind le président de la nationale waa Benno aussi boo xoolee ñoom it xëy na dem nañ ba xam ne perte nañ combat bi mu am benn xeer boo xam ne moo leen di dese mooy nañ ko bàyyeek moom léegi bu ko deful nag ñu bàyyi ko nit ñi par rapport ak la parole donnée loolu xëy na début mandat du jariñ dara ci parole donnée loo wax nit ñi mën nañ ci d'accord ak yonoon mais au fur à mesure ñuy dem bu am na yoo xam ne mën na xew rek nit ñi génnewaat loolu noonu ne bi mu ko bëggee def gis nga fi koo xam ne voté na sans carte d'identité ba mu ko defee pourtant ci jamono yooyu noonu xëy na amul woon benn benn polémique wala benn problème mais mhm. bi mu amee tuuti jeexi jaaxa ci xelu nit ñi mu ñëw di gérer am yu mu def rek la ko nit ñi rappelé waat loolu bi nga xamee ne ne nii lay mel ndax voté na fi sans fël pour jàll loolu yëpp day ñëw yaa ngi wax ci ban la ñuy lan la ñuy gën a xaar mais émigration régulière waruñu ko fàtte xëy na mën na bañ a nekk l'objectif carrément mooy li nga xam ne mooy ëpp ci discours bi muy def. Mhm. mais man bu ko commencé wee jaale ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan daanaka xaw a jëlaat tuuti ci discours bi mu def démb ca Mbour du ma bett. Mhm. parce que nag dañ naan lu ne kët ne jon te fi mu nekk nii xarit si laa. Mhm. li gën a ñor du assemblée parce que assemblée nationale ñu fàttali ne pouvoir bi ñoo leen ñoo leen yee mooy que ni assemblée moom ñu ngi doon xaw a nelaw. dañu nelaw ñu ngi doon nelaw euh, ñun je me euh, bi bi euh, Moustapha Ndiaye Sare annoncé waxee ci waxu motion de censure nga xam ne benn émission bi mu njëkk a def ci la ko waxee benn grand jury la woon je me rappelle mu wax ci motion de censure que ni bu ñu ko defee ñu di mën nañoo def lii. boobu le lendemain dañoo jël député Malick Diop pour réaction. moom li mu wax mooy déjà d'accordul ci DP ci ci euh, motion de censure cela veut dire que kon xawoon na un peu nekk dans une position confortable mais comme politique lañ nekk aussi Ousmane Sonko day politique parti la jiite xaw na leen a gësam ñoom itam ñu am ay réaction yoo xam ne def nañ ko mais par rapport ak li nit ñi di gis ci quatorzième législature bi nit ñëpp xam nañ que ni quatorzième bii nii du xay na bi ñu bëggoon mais dafa sës ndax ay euh, liste yoo xam ne xaaju liste la ñuy yóbbu bu nekk kon lu fa sës la te obligé nga dem voté ji voté nañu gis nañ ñu dem une première fois ñu am ballottage bu mel noonu euh, daanaka au Sénégal par rapport ak suñu histoire politique euh, donc lu nit ñi doon apprécier la tey bu gañee cinquante quatre virgule nangam pour cent mu gañe ko. war a mën a dissoudre assemblée à partir de tey mën naa jàpp que ni xëy na li ko loi bi may mën na ko jël ba mu jeex malgré que am na yu ñu war a sóoraale waale muy budget bi ndax ci euh, budget bi ñu war a reconduire bu fekkente ne amuñu budget déwén budget boobu doon amul élection pré euh, législative fan la ñuy jëlee ji budget wu yi loolu yëpp xëy na président dina am nu mu ko mën a lijjantee ndax pale ba nag bëri nañu fa nekk ñoo xam ne quand même seen xam-xam màcc na ci wàllum yoon mais man Issa li may gën a xaar aussi bokk na ci ay question de l'heure ñu wax waxaale ci reddition des comptes bi ba di wax nii waruñu ko fàttewaale parce mhm. que dafa nekk loo xam ne lu ñu war a def la ñoom ñi nga xam ne sax ñoom la concerné d'accord nañ ci ñu am amal reddition des comptes xëy na ci manière beeg yooyu noonu yooyu moom mën nañ ci waxtaan beneen yoon mais liñ d'accord ñun ñëpp mooy war na am ñu wax ñu fan lañ dugal xaalis bi moom it lan la fi fekk parce que bële passé daf ko junj taskatu xibaar yi xëy na. jëm nañ ci ñëw mais carrément waxuñu ñu ñaataa fi nekk ak yooyu yëpp te chiffres yooyu nit ñi soxla nañ ko direction yi heure boo xëyee gis ay révélation ñu di ko def yooyu yëpp soxla nañ ko xëy na tey mënul ñëwandoo ci lépp direction bu nekk la fa nekk ministère yi lañ fa mhm. lañ fa fekk ak yooyu yëpp mais au moins war nañu defal état des lieux boo xam ne sommaire lay nekk après nag ñu jàll ci li Ousmane Sonko waxoon mooy après direction yeeg ak askan wi